daanaka weer rek a des ci ubbiteg école fii ci Sénégal maternelle bu nekk fële ca école Manguier eh, 1 nekk ci ay anam yu doy waar ginnaaw inondation yi ñu weesu loolu tax Mamadou Junior jaxate di yëngatu ci ay organisation yuy defaraat ecole yi taxaw ci bu baax ngir ñogalaat bile maternelle. dañ ñu fi woo suñu benn membre Awa Sina daf fi ñëw def constat bi bi mu defee constat bi nag dafa gis ni école bi vraiment urgence la ñu déplacé wu fi ak équipe bi Moustapha ñeu xol déjà gis nañu fi mënutul xaar parce que normalement le 29 dañu waron dem Tambacounda école bi tudd école pont donc fi urgence la buñu joggé magal war nañ wara mëna intervenir fi daal di fi def dara parce que jardin d'enfants mom xalé yi am 2 ans 3 ans jëm kaw lay accueillir té fi ni mu mel nii doy na lool donc dañuy ñeu xol def constat bi wanaat ko communauté bi. ngir soob le liggéey dañ ci ànd ak askan wi. mu leen di jàppale ci ay matériel ngir fil ak weer xale yi mën a jàng si waat ci ay anam yu mucc ay leneen kat lii lañ gis lii ak lii lañ soxla dañuy soxla peinture dañuy soxla chaise turque dañuy soxla chaise anglaise dañuy soxla euh, bant dañuy soxla ay fil pour defar électricité bi ñu koy defar nekk ay bénévole mu doon seen métier nga dañuy ñëw def ben participation communautaire ñu dal di ñëw pendant 6 jours fi ci école bu défar ko bu mu rafetaat xamné fi ak un mois xalé yi dinañ mën ñëw jàng si incha allah. di Mamadou Junior jaxati di ñu xamal né depuis bi ñu commencé ce défar sen première école fu nekk la leen di doomu adamay di wo ñu ñu jappalé leen ci réfectionné war seen école. huit yi pare woon nañu déjà école bu ci dolé ko mu nekkaat 43. Euh, lépp bu commencez commencé di def ay école on nit ñi dañuy envoyé photo école déjà on suba dem nañu école bu nekk fii Colobane dem xool yi nous lañ fa war a la mais communauté bi ci parce que lepp lu ñuy def rek dañ koy won communauté bi ñom ñoy participer soit ak seen doole wala seen alal ñu daal di defaraat école yi. muy xamle ne nguuru Sénégal jàppalewu leen benn yoon ci seenu liggéey ñom li ñuy def rek mooy dañuy bind ci internet bi ay nit jàppale leen. non amaguñ benn appui état bi déjà ñun duñ bind état bi sax dañuy dañuy lancer wu rek déjà participation citoyenne la parce que dañu xam ne état bi tey fi mu toll nii mënul def lépp matewul lépp ñun dañuy def suñu participation juste. mën nañ jàpp ne fukki fan ak ñaar ci weeru novembre le école di ubbi fii ci Sénégal école yu bëri nekk ay jafe-jafe ndax inondation yu ñu wees loolu tax nguur gi war a si jël ay matuwaay ngir élèves yi mën a dellusiwaat ci ay anam yu mucc ayib ngir ñu am année scolaire bu baax fii ci Sénégal.